Debre bakna dalla asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Sacré-Cœur 3 tey maa ngi fi Sacré-Cœur 3 sama rakk ji xewle àdduna bépp xam nañ mag sama rakk ji muy Youssou Ndoye international am bis boo xam ne xam nga bis bu dellu si dafa neex waaw tey muy feete anniversaire feete wu ko sax ndax lépp surprise la dégg naa lépp surprise la waaw tubaarkàlla démb nag dégg naa am na ñu fi ñëwoon te ñooñu xam naa sa xarit la xam na fu ñu toll ci yow te leer su ma ñooyoon su ma leerul ñooñu ñoom fi démb heureusement yàlla lu mu def sax xam na ko ba man ak ñoom bokkuñu jour buñ fi ñëw ah ñooñu booy boobu sant loo waaw léegi Youssou bala maa def loolu dama lay nuyu di la sant di la gërëm di la ñaanal nag nga yàgg kaa feete sa bis bii nga yàgg feete ndax yow c'est na ami c'est mon frère sama rakk nga sama xarit nga àdduna bépp xam nañ sama rakk nga ndax dama lay ñaanal yàlla may la wér musal la ca cat at làmmeñ te xale nga da nekk si yoon Youssou yàlla la yàlla musal cat doxal ba kenn laal la Youssou Ndoye yàlla la yàlla may wér sa bis bii nag yàlla na ko yàgg a feete at paaraay yàgg ko fekke ndax ku nekk li ngay ñaan yàlla Youssou Ndoye barki sëriñ Saliou Mbacké damaa kontaan sama xol dafa sedd bi ma ñëwee tey bi gis lii sama xol dafa sedd c'est faire c'est xam nekk grand frère Youssou Ndoye c'est faire waaye nag tey dinaa laaj laaju xóot Youssou nuyu naa la ba noppi waaw maa ngi lay moom dafa bëri jàmm day ree rek day ree rek ah yàlla jàmm yàlla. waaw waaw Lirou maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax. di la remercier waaw si ñëw bi. waaw mënut a ñàkk. caméra bi waxante wu ñu ko woon de. waaw non non surprise la lii xam naa loolu xam naa loolu ndax yow. Ah. non soo gisee lii dafa am lu ma bëgg a leeral. askan wi àdduna ñu xam ndax ñëpp xam nañ sa digganteeg Modou Lo ñëpp neen Modou Lo sa xarit la sa doomu ndey la sa lépp la waa léegi man Youssou sa lan non yow sama waay nga sama doomu ndey nga sama grand frère nga yow loolu du day ah yaay sama mbër sax. ak sa loolu laa bëggoon xam léegi maa ngi Modou ku la gënal. non Modou ma la gënal mais boo leen doon bëree yow laay faral. <laughs> maa ngi Modou ku la gënal Youssou. non dama lay laaj dama ndànk rek nga yow ñëpp bàkke nan ma man benn basketteur laa am. muy yow ma lay tiitaroo di la sagoo barki Demba Ndiaye laa dem Amérique ba ma demee Amérique. ñu naan ma copain Youssou Ndoye copain Youssou Ndoye sa feer sa way sa feer nag soo taxay di ma wax lii da may jéem a tuutal wala nga may dambat. non mais nee naa boo leen doon bëre yow laay faral. su doon bëre. yow laay faral man ak Modou Lo ku la gënal waxal non damay laaj non waxal rek Youssou non laaj c'est question c'est dama lay posé question. ah yow ok question et réponse day yàgg rek xam nga ne man ak moom day bëri. Ah. ah oui. non combat man yow laa faral combat boobu. ah ndax sama xaalis la yor. yow mais joxo xaalis <laughs> mais joxu la woon si xaalis bi. ban xaalis. sa anniversaire. non bu fi indi problème joxuma benn xaalis bu fi indi problème bu fi indi problème bu fi indi problème. sa diggante yàlla bu fi indi problème joxuma tous tous la ma joxul waaye dama lay laaj. tey jii yow ma man xam nga ne Modou Lo man tant que tant que bëriwuma ak moom dama teg sama ah kon léegi bàyyi nga Bombardier yaa ngi si Modou Lo. non non ma kooku kooku moom bàyyi ko nooy bàyyi ba sama ma ci pare ci moom waaye loo lool <laughs> Modou laa la ni tant que bëriwuma ak moom man du ma am lu kon jeex na. combat boobu da ko gaa yi tëgg non boo leen faral. lan nga wax de. problème bi mooy <laughs> ambulance bi lay ragal mu jël si la nee na. dégg li mu li yor laa bëgg. waaw. waaw yàlla na ko yàlla defal te ñaari jabar la damaa bëgg ñaari jabar. mais es ce que attan nga loolu. attan naa la. ñaari jabar loolu du yëfu roi des la de. attan nga ñaari jabar. waaw ah. attan nga ñaari ah, am ñaari jabar ay Modou Lo ay Balla nga. Ah, ñoo fi amoon ñaar. waaw loolu la. waaye Bombardier itam ñaar la. waaye roi des arènes la dafa am ñaari jabar. Bombardier mais ñoom ñëpp nekkoon nañu roi. Bombardier fu mu ne Bombardier de ñaar de <laughs> dégg naa daa jeng de dégg naa ñaari jabar waaye daa jeng Bombardier dafa ñaari jabar waaye daa jeng waaw dafa jeng Modou Lo jeng non non non jeng mi ngi koy gérer ah, mi ah. man benn rek ah. kese monogame monogame waaw caaxaanoo non caaxaanuma benn kese benn laa attan man de man bëgg naa kon yow gérer ko rek <laughs> yow est-ce que ñeme nga ko lu ma ciy ragal. muy góor yàlla di bàyyi faal di taalibe nga xam est-ce que mën nga ko gérer. Hmm. ah kon yàlla baax si nag bul ma mere damay for rek nag li ma wax bu ma jëlee dara madame Ndoye dégg nga xam nga ne yow doo am wujju ñëpp leen am wujju ba mu des yow madame Ndoye dégg nga damay for rek damay for rek damay fo damay for rek na yàlla xam nga kii non non non damay for damay for rek na yàlla damay fo ah. waa damay fu benn jigéen bëggul wujju damay fo rek papa damay fo rek damay fo rek kii c'est mon frère sama rakk la waaw Youssou tey sama xol dafa sedd ndax vraiment lii dafa neex yow suma xarit nga man benn basketteur laa am ci Sénégal ci àdduna muy yow ñaata géejaway laa am géejaway moom laa am seytaane nga rek nga naa ma ñaata mbër ba géejaway laa am man Balla Gaye mooy sama rakk la sama frère la dëggee de ñoom guy geeg ah, ah ñoom kii nu mu tudd ah, ke ah, Bombardier man bul ma ko waxati de nga ma Bombardier bu ma ko waxati Bombardier mun maa jur nga ma du sa rakk Bombardier mun maa jur. da nga war a tëggal ma. mais dégg naa dafa nay dafa nay. dafa nay dafa nay dafa nay. maa sacrifier ma waaye dafa nay Bombardier mënu maa fay. Ah. waaw man moo gën yàq na ma léegi. Eh. ah oui tëggal ma combat yombatul de. Mbaaru waaw yii moo yàq. da ngay yokk enchère yi. ah tëggal ma combat yombatul. am na benn promoteur bi may waxal fi mu ne nii tëggal ma combat yomb. waaw ah, fi mu ne nii da ngaa yokk enchère yi. Ah. da ngaa gën a cher. waa léegi lu may laaj Youssou Ndoye daa am question yu ma lay laaj célébration at mbëri ndax yow dama gis mbëri yëpp say xarit lan léegi loolu laa la bëgg a laaj célébration at Modou Lo at Balla Gaye at ñoom Siteu. papa saw mbër yi dama gis mbër yëpp say xarit lan waaw at man sax sa mag laa sa xarit laa léegi relation bi nga am ak mbër loolu laa bëgg a xam et jikko sportif bi la wala qu'est-ce wala nu mu demee noonu loolu laa bëgg a xam. doo jikko amateur bi la rek. ak amateur sportif bi xam nga booy sport moom boo gisee keneen kuy sport rek danga nga koy bëgg supporter tamit ndaxte amal ñu ñun ñëpp lu ñu bëgg mooy tekki tere suñu waajur xam nga ak suñu njaboot. moo tax tey nag boo gisee tey jii kuy xeex ndax loolu mu noo def dara lu faral ko xam ma bëgg tamit mu jëm si kanam te man man moom amateur làmb laa man damay seetaan làmb yëpp ba làmb bu ndaw ak bu mag laa si yemale lépp laa seet sa mag bu jigéen bee ma si yàq nag màgget <laughs> waaw waaw moo ma si yàq moo moo ma njëkk yóbbu kii moom bàllaay mërëm <laughs> si lu ma foog <laughs> waaw. at maire bi tamit Balla Gaye mbërëm maire bi. maire bi maire bi maire bi moom mi ngi fépp maire bi ñëpp la faral ku daan rek la faral maire bi est que du wulli est-ce que wulli du mun na nekk de mun na nekk de. yaay booy yaay kan mooy sa mbër waaw man nag ah cëm ay yaay booy ay yaay kontaan naa ci loolu man lii moo tax nga neex ma lii laa bëgg ndax mo kii moom kenn xamul fu mu far Youssou Ndoye soo kenn xam mbër yëpp ay xaritam lan mbër yëpp ay xaritam waaye xam naa ne moom Modou Lo moom xaritam la moom. waaw waaw moom Modou moom c'est mon moom c'est mon frère dëgg neex yàlla moom làmb waaw moom moom làmb sax boolewuñu waaw waaw daanaka duñu sax wax ay waxu laamb wax dëgg neex yàlla waaw. Eh, non yow yow nee naa la moom la gën a mais boo leen bëree yow laay faral. ndeysaan loolu daw na yaram xam nga Modou moom mi jikko sportif lay dund. moom euh, dina nax ni ñu bëri dina lakk ñu bari waaw bu baax yàlla nga gudd fan te am wér looloo tax nga baax ah Youssou xam nga nee naa Youssou Ndoye di koy sportif lay dund ndax Youssou Ndoye mun naa composé ku ne su ñëpp tee doo xam Youssou Ndoye kan la bëgg man xam naa ci dara soo ko ne ndax damay waxtaan ak moom saa ne te Youssou ñëpp ay xaritam lan moom di koy ah waaw combat waaw dama laaj ci komba exactement exactement bee question bee question. combat le 31 bii di ñëw Balla Gaye ak Ngor Soos dëkk Mbour noo ko bu neex lay nekk xam nga instant bi moom ak seen face à face bu ñu mujjee def moom combat bi. fi mu ne nii dafa daw. waaw am na am na kii am na enjeu bu baax te xam nga Balla revanche jëli xam naa ni moom instant bi pare na confiant na waaw. moom man moom bëgg naa dem star seetaane ko incha allah. sportif nga da ngaa bëgg làmb. waaw. waaye Bombardier bi ñawul passé ñëwul. <laughs> commencé na tappale mi nag. non est-ce que sonnul si face à face. tegloo bi xaalisu Gaston di nga bëre. di nga wax. Gaston xaalisam avance ku ko lekk di bëre di wax. waaw te fu ñu am suba de. encore. tey tey amaat na benn face ah. waaw waaw dina de non bii baa day ñëw. bee passé dafa daw moom. ah mooy TFM bi. waaw man boobu seetaanu ma ko sax. premier bi laa seetaan premier bi moom neexoon na. Balla yëngaloon na premier bi bu baax. yàlla ko yàlla fa cat sama rakk jooju. Ah, waaw yàlla na mosal ci cat. barke Sëriñ taalibe la. moom borom baax la moom. waaw maa ngi lay ñaanal Youssou vraiment. sama xol seet na guy ndax li xam nga surprise laa ko def ndax soo gisee ma def ko surprise yow suma rakk nga sama xarit nga ba pare da bëgg làmb da bëgg sport sportif nga ba pare nga bëgg làmb teg ci yow mbër yëpp say xarit lan ku ci am bis gis naa ni ngay koppatoog moom vraiment ñëpp nga seqal jàmm amoo fenn sens interdit sportif noonu lay mel bokkul ak sunu genre yi nga xam ne ñun dañuy far ba ñëpp xam ko waaw ah, waaw waaw waaw dañuy far ba ñëpp xam ko yow ji koy sportif nga am yow yàlla na la yàlla defal jàmm nag li nga bëgg yaa xam yàlla na la ko yàlla defal yàlla na la yàlla musal cet at làmmeñ bisu tey bii le le 16 bii yàlla na nga ko yàgg a féete le 16 mai yàlla na nga ko yàgg a féete du la mai juillet nga amee me bàyyi li nga may wax waay le 16 juillet yàlla na nga ko yàgg a féete yàlla na nga ko yàgg a féete ñu yàgg kaa fekke parents yi yàgg kaa fekke man daal kontaan naa ci yow yàlla na la yàlla defal jàpp. looy tàggatoo ci famille bi at sa sœur yu baax yi ak soxna si madame Ndoye aawa buuru këram aawa na la jik su la aawa jigee nu la neex ngay doxe aawa na la jik su la aawa jigee nu la neex ngay doxe aawa na la jik ak sa sœur yi lan ngay wax ci ñoom Youssou waaw kontaan si ñoom rek xam nga man lii yëpp yëguma ko woon wax dëgg neex yàlla. ak Lamine da ngeen fii ñëw xalaatuma si woon yii yëpp xam nga pour man da ngeen di ñëw rek ñu toog reer affaire yooyu noonu damaa jógee entraînement ñëw fekk fi lii yëpp xam nga mais di kontaan si ñoom rek xam nga ak sama xarit ami d'enfance yu may àndal chaque jour xam nga. Youssou nit ki euh, da ngay fonk sa àndu démb say xaritu démb say enfance su démb. loolu laa bëgg nga di nit ki dama bëgg nga fonk say enfance su démb nit da ngay fonk nitu démb waaye am na su ñoo xam ne tey su leen yàlla dimbal su nekkee star wala nekk rek dañuy fàtt seen nitu démb yow meloo noonu déedéet Youssou Ndoye melul noonu waaw say nitu démb gi nii wax nan ko ah lii moo am solo fàttewoo say nitu démb Youssou loo wax sa sœur yi waaw sama sœur yi xanaa di leen sant di leen gërëm rek xam nga xam naa ne ñoom ñoo organiser affaire yi yëpp ak soxna si xam nga di leen si remercier bu baax xam nga surtout nag di gërëm parents yi ndaxte xam kenn du ñoom. ndaxte lu ñu am rek waa suñu papa yeeg suñu. yaay ndeysaan am rek pour ñoom la. billaay leen gërëm bu baax di leen sant. yàlla guddal fii ak Lamine xam nga kontaan naa trop si ñëw bi. yow <laughs> maa tey. <laughs> waaw daal ñëpp xam nga ba benn waa euh, sama xarit mi nag sama jigéen bee sa sœur bi sama fans la moom mami ndooy ma xadi xadisa Ndoye madame nan madame Guèye xadisa Ndoye madame Guèye sama xarit waaw sama fa euh, yow madame nan te madame Mbay Mbay Mbasu ay madame Ndoye awa buru këram awa na la jik su la awa jigee la neex ngay doxee awa na jik su la awa jigee neex ngay doxee Saliou Khoulé ngi nii la international animateur bu mag bi doomu ndey Mamour Kandji doomu ndey Matar Ba ministre de sport doomu ndey Lat Diop at Manar at lii Kaba Saliou a ngi nii maa ko xam doomu ndey Youssou Ndoye international yaag Youssou Youssou ngeen dëkk dëkkin bu rafet chaque jour su ma gisee yow danaan ma liiru dégg naa li ngay wax ci Youssou Ndoye waaye ku baax la ku yaru ku am taalibe billahi wallahi noonu la ma koy waxee saa su billaay sax bi ma ko ñëwee fii ma gis ma ne ko Youssou Ndour mi anniversaire waaye dama koy bett surprise laa koy def mu ne ma lu def nga lu rafet ndax dafa baax dafa oyof waaye yéen kenn gënu la yéen ko baax nga maa ngi lay ziar loo wax ci bisu Youssou Ndour bi Saliou Khoule. waaw jërëjëf jërëjëf Lirou avant tout may nuyu internetu lu TV yëpp di la gërëm yow it di gërëm grand Abdou Faye Bour Guéweul ah, di gërëm Nicolas c'est mon ami ñoo nekk na woon Excaf muy nit ku baax. Nicolas wax nga dëgg bi ne ko Escaf je connais dama ko dégg ah Nicolas wax nga dëgg moo ne ko Escaf Soxna ñoo fa nekkandoo woon euh, nekk bu rafet nag muy nit muy nit ku baax di ko mën liggéeyam waaw ah, man jikko laay jàppee nit moo ma indi fii tey ci Youssou waa jikkoom rek moo ma indi fii ñoo jàkkaarloo kër muy nit ku baax mm. loolu laa ko mën a seereel te social bi muy defit umpul umpul social yi yi muy def waaw social dégg naa ko Youssou Ndoye def ay social waaye Modou Lo rek ci àndal nag <laughs> Modou Lo rek lay àndal social yi ngay def Youssou Ndoye dee ma ci boole dee ma boole ci social yi ngay def Youssou Ndoye waaye Modou Lo rek nga ci àndal moo tax soo nee ma man gëm-gëma damay xaw a jaaxal xamaloo c'est très important dafa am solo day def te yàlla tax te kenn ko ay nit boo leen tanee da nga leen di dimbali waaw euh, ay nit boo leen di leen dimbali sax dañ lay bëgg looloo waral ñëpp teew fii waaw boo leen tanee te doo leen dimbali mën nañ laa bañ mais moom loolu fekk ko ci kàddu yi jarul muy bari xanaa ñu ñaanal ko rek yàlla na ko yàlla lafal cat lépp lu mu bëgg moo ko xam ci xolam yàlla na ko ko yàlla defal dooley Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. yow yàlla na la yàlla lafal cat. Moussa làmmiñ ak cat ndax tubaarikàlla macha allah xam nga ni jamono yii yow la. te yaa boole woon dara ki wax. liggéey rek nga xam jërëjëf lu ma neex ci yow liggéey bi da nga koy jox ak xam waaw noonu la waaw ah, noonu la euh, buñ lay fay bu weer dewee boo jëlee salaire bi da ko war a méditer mais jël salaire bi di xalaat leneen fekk la ci man loolu du ma dal man bu may bu may animé lu ne laay daj pour rek auditeurs yi bëgg ah, may nuyu nag sama xarit Lamine ak Babacar <laughs> borom ñaari soxna yi xam nag maa ngi lay siyaare bu baax moom xaritu Youssou la xam naa ne ah, maa ngi koy siyaare di nuyu Omar di ko ñaanal yàlla na amiin yàlla na ko yàlla may ndam doole Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul te dina am ndam incha allah amiin yaa yow ci kaw ci kanam ñu fay fekk benn ndaanaan ndaanaan bu mag muy Abdou Faye képp ku nekk xam na Abdou Faye man nag Abdou Faye tubaarikàlla masala Abdou wooy laa ko xamee woon su wooyee rek nga ne gonga tubaarikàlla loolu la ko yàlla mën loo te ndaanaan ku la fadlin la ñu fekk ko fii ci kër Youssou Ndoye Youssou Ndoye xewle du sunu frère ñu fekk ko fii il faut ñu wax nga sànni say kàddu ci Youssou Ndoye ndax vraiment xam naa ne am na loo xam ci Youssou Ndoye xam nga loo xam ci séeram xam nga am na loo xam ci parent am loolu lan lay laaj. maa ngi sant yàlla di nuyu tout l' internet du Sénégal ah di la nuyu liiru suma mag suma goro suma xarit di nuyu Saliou Khoulé comme ni nga ko waxee léegi di nuyu Nicolas ñoo bokk lépp ndax ñoo bokk ñoo bokk teen fu ñu jaar sunuy goj laxasoo tey nag Youssou dafa am surprise bu mag li yombul li koy may mooy jikko comme ni ko Saliou Khoulé waxee moom daa jóge entraînement rek ñëw yem ci xamul lu xew daa jóge entraînement rek ñëw yem fekk saal bi fees del ñu taal kilim bi dresseur yi toog di dresser loolu mooy baax boo baaxee àdduna boo ci nekkee baax amal nit ñi njariñ lépp lu ñu def ak yow te nag Mamy Ndoye génnu ci de Mamy Ndoye mi dénk petit génnu ci lépp moom bëgg frère am fonk ko xaritoog moom yaay ma nga ne toog waaye bàyyam bu baax baa ngi ne toog le procureur ndoy beneen bi ci topp gorom bu baax baa ngi ne toog a ah, Mamour Anta Salikan Anta Salikan Xaadim Rasul torodo demba ngaari jëm yumma mojji baab mojji bi ngel a taama mooy bàyyu Aysa Aysa mi toog a ah, ñuy nuyu màgget nag di nuy su nijaay di nuy tous les amis dañu sundooy Cheikh Sare ñu ngi jël nuyoo bi di ko jox Bukar ak Dees mu jox ko mu jox ko xarit yëpp naan yuusu happy birthday to you joyeux anniversaire bés bés bu dellu si moo neex noo jàng naa nag. Kachomoro